première course bi. Mhm. fusion PDA la. Mhm. mooy poulain de deux ans yi. Mhm. ak PTA les poulains de trois ans. non primés. bi saison bi ubbeek léegi. kenn amu ci xaalis. Mhm. moo tax initiative bi nekk initiative bu am solo. ki nga xam ne moo ko créé. Mhm. di comité régional bu Dakar. Mhm. Omar Bawo jiite ko. ki nga xam ne mooy génn ba tey mooy Sambacounda 2 en deuxième position position seen naaf nga xamante ne mooy Aïda Nafi mu ñëw. ah position tamit ñoom ñëpp def nañ groupe mais ba tey ki génn mooy Sambacounda 2 mais ba tey Tindoo di 2 aussi bàyyi ko Abdou Diop moo ko war. Sambacounda 2 ki ko war moom mooy la jockey Fallou Diop muy la jockey confirmé ba tey nga xamante ni moom mooy Tindodi 2 le numéro 12 ah. moo nekk ci kanam waaw ah, ah, ñëw nañ ci kawam Abdou Diop kii euh, Tindodi 2 dal na ci kawam ñëw na ci kawam dal doomu ki nga xamante moom mooy euh, acteur célèbre la waaw Tindodi 2 Tindodi mu jàpp bàyyi ba Samba Koura mi tey dina neexalaw Samba Koura 2 200 mètres moo leen dese attention les 10 200 euh, mètres moo leen dese à l'arrivée 200 mètres moo leen dese. ci ki Samba Koura Diop ci Ndodi 2 waaye ba dafa mel ni Samba Koura Diop raw na. Samba Koura Diop deuxième ci Ndodi troisième nekk nga xamante ni mhm. moom mooy euh, mhm. Aïda Nafi quatrième mhm. gi mel ni Binta si la ñu gis on attend aussi les résultats provisoires en attendant aussi direct bi gis nga ko gis nga ni nga xam ne demee na ko ki nga xam ne moo raw mooy le numéro 12 di Samba Koura 2 mu ngi bu Madior Diat dëgg la Fallou moo moo ko driver le jockey confirmé waaw le jockey confirmé mooy numéro 12 bi deuxième bi nekk deuxième bi Tindo di 2 la Tindo di 2 mooy le numéro 7 troisième bi euh, kii la Aïda Aïda Nafi Aïda Nafi moo jël troisième gis nga ko ah, gis nga. Ah, ñu ah, ngi joxe ñu ngi primé. xoolal ci kaw ñu ngi joxe trophée bi. trophée bi lañ koy jox. dëgg la. Fallou Diop la ñuy jox trophée bi. gis nga ko mhm. ah, Bologna moo yor protocole bi. Mhm. mu nekk lu am solo. ndeysaan mu nekk lu am solo Fallou Diop xam nga se est le meilleur choqué. Mhm. Ah, ah fi mu nekk nii am na 29 réalisations. du saison bi ubbee ak léegi. écurie Lamb Faar mooy la meilleure écurie de l' année 2000 2021. xam nga mu nekk lu am solo ngañ. kon daal tamit course bi tamit Père Amadou Dia danaa doon course bu rëy ndax dañoo boole ñi nga xamante ni mos ñun 2 ans yi mos a raw ak 3 ans yi mos a raw. nga xool tey ji ak ñi ak ñi placé wu. Ah, ñi mos ah. ah, ñi mos. dara. boo xoolee fi deux ans ku mel ni leader bu Abdoulaye moom mu ngi si sept participation mais rawagul. tey jii rek dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax gis nañ lu fi jóge am na lu leer lu fi bàyyi. tey aussi ku mel ni Mariam Dar mu ngi si sept participation am tamit raw na benn dimanche am cinq placé ku mel ni aussi Dija moom tamit am na quatre participation am benn placé tamit ku mel ni Law. am na sept participation am quatre places dinaa si passé xel ñoom ndaw mu ngi fa tegee comme ni ma ko waxee. moo mii. Uh-huh. ah nekk euh, doomu Praia dem Dioy moom mu ngi si cinq participation am quatre réalisation ak benn deuxième. ki nga xam ne mooy njëkk poulain de trois ans la am na douze sorties am ñaari victoire ak huit placés. moom xam nga vingtième journée bi mooy jël troisième ki nga xam ne mooy njëkk nañ ko bàyyi xel mi ngi jóge écurie Adja Cuuc Papis Ñaa waajal ko ak ñoom Moussa Lo ki nga xam ne mooy Lougaloo kër Mbarku Bala ñaan moom moolu ñaari at la am na sept participation am cinq victoire ak ñaari placé ki nga xam ne mooy Baye Baara Jenn moom moolu ñaari at la am na sept sorties am ñaari victoire ak cinq placé ki nga xam ne mooy Sanu Sall poulain de trois ans la am na ñet at am na dix participation am benn victoire ak huit placé 18e journée la gëj xam ne mooy Betty Madior moom moolu ñaari at la uh-huh. am na six participations am trois placés li uh-huh. nga xam ne mooy la reine de Saba moom moolu ñaari at la am na sept sorties am quatre placés mu nekk course bu ndax fii booy jël favori uh-huh. bu dee moolu ñetti at yi la uh-huh. expert mooy favori waaye uh-huh. ñëwul tey moom xam naa ne dafa nekk au waaye boo ñëwee ci moolu ñaari at yi ki nga xam ne mooy lugaloo amoo am cinq réalisations ndax moo leen raw quatrième journée raw leen sixième journée raw leen huitième journée raw leen quatorzième journée ak dix-huitième journée la deuxième course est réservée à la fusion PDA-PTA primée 10 partants pour une distance de 1200 mètres. Mhm. ñu nekk ñu nekk 10 par temps war a daw distance su 1200 mètres. Mhm. benn wëndeelu la. ak genn wàll. Mhm. bëriwul. waaye troisième course bi groupe 3 bi ñoo koy daw. mètres waaw waaw ñooñu loolu mooy seen distance de prix de sax. xoolal Baye Baara Dieng mu ngi noonu. Baye Baara le jockey Yamar Gueye moo ko moom mu ngi si deux réalisations. Yamar ay placé. moom journée bi mu fi mujj dafa raw daw si temps 1 minute 31 secondes. muy a Ader moo ko def une 33. Mhm. waaye moom bi mu ñëwee. Mhm. dafa gën a delloo chrono bi. Mhm. deux deux secondes. mu nekk lu am solo. ndeysaan ku mel ni Diofène aussi. 1200 mètres la. man nga fa jëkk génn ki nekk sa ginnaaw ñëw romb la la. état mooy raw. jóg nañu parce que kenn mën ngeen jël jekk nañ. waaw génn nañu ah, ko mu ñëw. waaw waaw Louga génn waaye ki ne si aaraab bi ñu ngi ni Mariam Daa moo génn. Euh, law ñëw na. laaw ah, Law moo génn Law moo génn Law moo génn en deuxième de Saba. la reine de moo fa nekk. troisième mu ngi si biir bi. Baye Bara Dieng mu ngi si biir bi. Ah, Samou Sall aussi mu ngi si biir groupe bi ak leader ak ki nga xamante ni mooy Mariam Da mais ba tey ki nga xamante ni moo génn mooy ki nga xamante ni mooy Law la reine de Saba ñoo deuxième position mais Louga Lo mu ngi pointe troisième position ak dara yëngu waaye Law mu ngi ba tey moo génn doomu Tiboteel ak Jamo si sa Père Amadou Diallo. waaw Law yow leen benn moo la reine de Saba. Uh-huh. mooy numéro 10 bi. Uh-huh. am na fu ñëw Diof ñëw na ànd ak leader. na ànd ak ñoom ay poulain de deux ans lañ. Ah, waaye Diof yooyu mu ngi si biir groupe bi Baye Bara génn mu ngi si biir groupe bi. Samou Sall mi waaye ba tey law moo génn te rek li mu jàpp nag bàyyeeku ko ba tey mais daf mel ni leader bi Abdoulaye Ndoye ñëw na li nga xamante ni moom mooy position troisième position ki ñu fas yéen moom mooy law mu ngi nii na si 200 si progrès boo xamante a moom tamit waaw 1200 mais Louga Louga la moo nekk troisième position attention les gis deux cent si arrage bi ànd ak Baye Bara Dieng nañ Louga loo dawal na Louga loo na donc ki nga xamante ni mooy euh, na la a ak ki moom mooy benn ko Louga loo génn na Fallou Diop raw na premier ndeysaan Fallou Diop raw na waa gis nga dafa toog déglu leen eh. ah ku suuf course bi rëy na. course bi rëy na. Ah. maam Ngañ. waaw premier Louga loolu la ah, numéro 6. Ah. monté par le jockey Fallou Diop. moo raw sànq rawaat. billahi c' est le jockey en forme. billahi mooy Messi. mooy Messi c' est le jockey en forme. am na ñu naan kàmpi ji wala kenn de xoolal taxawaay bu jékki bi mu taxaw si Louga loo. ah Louga loo defe naa bii mooy. Euh, sixième participation sixième réalisation. waaw donc rakk si Real la moog Real ñoo bokk ndey ak baay. muy lu rëy a rëy ah Alé Diagne moo ko judd. <laughs> jox ko moo jox ko frère am ki nga xamante ni <laughs> moom mooy euh, Omar Bao. président uh-huh. félicité Pape Arona Diagne. Uh-huh. félicité ku mel ni Ababacar Sadik Diagne. Uh-huh. félicité aussi toute la famille Diagne ndeysaan lii macha allah lii naaj na waaye daal Louga moo raw. waaw ñu xool rek mu leer. Matar Ba seen naa si le ministre ñëw Omar Ba moo jiitu moo nekk si kanam moom mooy président comité régional. ki mhm. ma seen Matar Ba la l'infatigable mhm. ministre. ministre des sports man suma rakk la suma mhm. xarit la. dëgg la suma rakk la parce que ñoo defandoo mouvement associatif. mel ni mooy maire mooy maire Fatick sama rakk la suma xarit la. parce que mi ngi def liggéey bu am solo. xam nga man ngañ li ma yàq mooy man du ma jay nit. waaw animation bi Pampar ba bokk si kaw suuf waaw Pampar bu Thiès mhm. Euh, Mamgagne, mmh. la troisième course est réservée au groupe 3. Mmh. 17 partants pour une distance de mètres. Mhm. Numéro un Manka, mm -hmm. propriétaire Elagi Salif Guen, mm -hmm. Ning, corde numéro 4. Numéro 2, Tahwa, propriétaire Rian Sidi Mohamed Nian, jockey Mohamed Gadjaga, corde numéro 15. Numéro 3, Bach, propriétaire Elagi Omar Diawara, jockey Mohamed Dieye, corde numéro 12. Numéro 4, Gamou Yalla, propriétaire professeur Sakhir Kiam, jockey Oumar Sarr Diallo corde numéro 3 numéro 5 Nélen Kaar mhm. propriétaire Lamine Diop jockey Ousmane Sow corde numéro 11 numéro 6 Linguère Tening propriétaire Babacar Mbagnick Fall jockey Djibi Ba corde numéro 5 numéro 7 docteur Diakharagne propriétaire Hassan Azar jockey Serif Badiane corde numéro 2 numéro 8 Madame Lopez propriétaire Moustapha Thiam jockey Pape Demba Cissé corde numéro 1 numéro 9 Belle propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey Saliou Kobar corde numéro 14 numéro Mambo King propriétaire Maître Maître Moussa Mbaké Joké Fallou Diop corde numéro 16. Mhm. numéro 11 Khourey Dia. Mhm. propriétaire Maître Moussa Mbaké Joké Mbaye Diène Diallo corde numéro mhm. numéro 12 Aïda Nafi. propriétaire Ali Thiaw Joké Demba Thiam corde numéro 8. numéro 13 Taïf ak propriétaire Dame Bawo Joké Yamar numéro 8, numéro 13, numéro 14, Aminata Marie, propriétaire Mohamedou Lamine Diop, Jockey Mody Kassé corde numéro 7 numéro 15 Ndey Maria propriétaire Assane Diouf Jockey Modou Dieye corde numéro 10 numéro 16 Paté Fari Diop propriétaire Bounama Diop Jockey Alassane Seck corde numéro 6 numéro 17 Massatchi Wakhla propriétaire Ibrahima Ndiaye Jockey Alioune Ndiaye corde numéro 13 17 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play mhm. et dans un esprit chevaleresque mhm. fas yaa ngi jëm ci départ ba waaw waaw ñi ngi kanteer gis nga fas yi ñi ngi kanteer boobu noonu nga jàngatee rawante bi uh-huh. waaw parce que daf ci am fas yoo xamante suñu tool tey faaw ñu rawante ku si mel ni bel uh-huh. mooy vainqueur bi mais ku si mel ni tey Mambo King ak baax uh-huh. ak taxawaa ak euh, neleen kaar gis naa ni daal fas yooyu tey ji war nañoo am na rawante bu neex bu am seen diggante incha allah waaw waaw mosu am problème am benn xaar ma

peut-être nekk deuxième position ak dara yënguwul ànd ak Ndeye Maria doomu dana kër boobu noonu waaw le numéro 11 moom génn ci kanam muy fas wi nga xam ne mooy Khoureja bu maître Moussa Mbacké ki nga xam ne moo jël deuxième position mooy le numéro 14 di Aminta Mari mhm. jógee écurie Maktoum mhm. moo nekk en deuxième position en troisième position. Uh-huh. ñoo ngi xaar mu leer Ndey Maria moo uh-huh. nekk foofu. Ndey Maria jógee écurie uh, écurie Waalo. Waalo bu mbëtt bu mbëtt mooy génn ba tey. Uh-huh. boo xoolee tey ku mel ni Suudu mu ngi si biir groupe bi. Bel mu ngi si biir paquet bi tey ji ku mel ni Mamboki aussi mu ngi si biir baax taxawaa ñoom ñëpp daal ñu ngi nii waaye ñu ngi laal gi nga xam mooy tunaa ba tey nag ki génn mooy uh, Khourédia nekk doomu Khouda ak Kazaroun Amin Tamari ñëw na Amin Tamari ñëw moom benn écurie mag benn écurie mbaxtu nga xamante ne suñu xel suñu mooy nekk ci kanam mooy ah Bel ñëw na waaw ah, Bel ñëw na ñëw na man ah yi jamono ñëw na eh, yi mu ngi si alaaj bi jaamu ñoom ñëpp def nañ benn fat waaye ñu ngi doon Amin Tamari mais ki génn nga xam ne mooy Bel nekk doomu waat xoos ak nga xamante ni moom mooy bébé Sénégal génn na taxawaa dawal nañ taxawaa dawal nañu baax mais daf mel ni Aminata Mari mu ngi wàññi li muy def ki ñëw deuxième position mooy le numéro 3 di baax bu Pape Moussa Thiam monté par le jockey Mouma Dieye mais moom mooy baax le reste ñoo nañ dawal nañu nag baax baax génn na baax génn tamit ñoo nañ mais bel moo na aha dawal nañ day Maria si ah, ligne day Maria dawal nañ ko waaye bel génnaat na bel dara yënguwul le numéro na muy ah, fak Bayla ñëw na ñoom ah. ñëpp ba ñëw waaye ba tey ki nga mooy génn mooy bel dawal nañu taxawaay moo Ndiaye Gadiaga moo war. mais ba tey bel génn na doomu Waat Xoos la Waat Xoos Galileo Sador zone na zone danseuse taxawaay ñëw na deuxième position doomu ki nga xamante ni mooy Pirwil la ah, baax ñëw na troisième position docteur Diakharañ. Mambo King waaw docteur moo ñëw troisième position Mambo nga xamante ni moom mooy dem jënd na bu Abdou Khadir Mbaye nga xamante ni yaayam si kii moo ko juddu metti Moussa Mbacke ah. muy euh, muy euh, bébé Rose waaye taxawaa dalaat na si kawam nag taxawaa dalaat na si kawam mais ba tey bel génn na bel premier bel deuxième fois nekk nga xam mooy docteur Diakhameñ la ak nga xamante moom mooy euh, Linguère daal uh-huh. on attend daal les résultats uh-huh. mais pel signé na li nga xamante moom mooy dixième victoire am si li nga xamante mooy saison bi wax dëgg yàlla bu nekk fas boo xamante mu ngi wan li nga xamante mooy groupe 3 bi que ni su karang wax dëgg yàlla suñu raw sama rawante yéen day man gis nañ nag dimanche ba mujjee mooy fusion bi meilleur jockey. moom moo ko Mohamed ku nekk am na 14 réalisations. Mhm. bu rawee tey am na 15 réalisations. Mhm. moo topp ci ki nga xam ne mooy Fallou Diop. Mhm. mu ngi bokk écurie Bagdad bu Djily ñuy jaajëfal Djily Mbaye. ci di ko bu baax a baax félicité ci li nga xam ne am na waaye di félicité Papis Niang. ci fas yi nga xam ne mooy taxawaa. Bouriane Sidi Mohamed Niang moo jël deuxième. ki nga xam ne moo jël troisième. troisième Linguère Tening la Babacar Mbagnick Fall moo ko moom ah, waaye mu jël ko jox professeur Sakhir Thiam mu nekk course bu rëy muy mhm. groupe 3 bi mhm. waaye di wax rek ne bel c'est le favori numéro un avec quatorze euh, euh, quatorze participations. dix réalisations. trois placés. dafa am koo ah. mu dara mais man dama dem si fasam. ma vérifié ko. ma vérifié ko ma gis ko. ma ñëw ma si commissaire wan ko ko. Pape wan ko ko wan ko ko. waaw paddock bi la. fii am na lu muy taxaw. am na problème bu am. mu dawal amul dara ma dem ba si fasam. xool fasam. sa sera ne joxu ko. li passé passé na. waaw man la yow ak kii ak góor. yéen trois yéen responsable les conditions sont très claires. waaw su ko defee attache. waaw pour dindi attache am. ba pesant. waaw suñu constaté amul attache. waaw ah, conseil qu'il est détaché et il est distancé. ko defee seen liggéey nag yéen la. mooy formateur bi gis nga moom mbay Diène ñoo taxaw ak ñoom. Hmm. fas yi bu ñu leen selee dafa am plomb bu ñuy takk ci ñoom pour ñu bañ a di wàccewaat li nga xam ne mooy étrier yi. bu ko wàccee da ngay am daan. Hmm. loolu nag ña nga nekk paddock dañ ne leen ñu veiller ci vigilant. Hmm. muy lu am solo ndax code des courses moo bëgg nit ñu bàyyi di jafandu ci fas yi. Mhm. ñuy def monte en suspension waaw Fallou naka nga rawante tey ndax gis nga tey course bi rëy na comité régional moo ko organisé. tey yow yaay meilleur jockey de l'année defe naa bii mooy sa trentième réalisation bi bi bi saison bi ubbeek léegi sur vingt journée cours yi yow yaay joke bi nga xam ne yaa gën a xarañ xoola rawante bi fii Fallou mm-hmm. xoola fii rawante bi man mambo ki nga war fii mambo ki nga war non bi doon maa raw mm-hmm. deux ans première deux ans ak bi laa raw mm-hmm. waaw tey lan ngay wax ci bés bi tey bés bu rëy la Omar Bawo di sa patron jiite comité régional organisé ko nga raw ci ñaari course nekk meilleur jockey de l'année. di si yàlla rek di wax course Sénégal léegi mu ngi avancé. comme que Amar Ba tëgg na course gaa yëpp ñëw turbine course bu mel nu Moussa mel loolu yëpp di dool di sant yàlla di ñaan yàlla mu yàgg avancé amiin yàlla waaw waaw boobu yëpp ndax fas yi dañ ko daa andi muy génn ba teer ñu andi ko si deux mille deux cent mètres mhm. ñu toog jaabal mu raw kon loolu am na leneen lu muy wane mhm. ndax wane ne fas mën naa jàpp mën naa dem kanam mhm. mais kan nga war a wax si fusion bi ni nga xamante moom mooy takk nii fusion bi daliñ laa si war di ñaan ah. yàlla may ñëpp maa ngi leen di sant di sant waa France waa Louga waa Italie. ah la quatrième course est réservée à l'Open groupe 1. groupe 3 PTA. 16 partants. pour une distance de 2200 mètres. drapeau bu bi la ñu taxawal. moom mooy wane ne départ bi baaxagul. liy valider départ bi mooy drapeau vert. bu drapeau vert bi jógee ba wàcc rek. génn nañu ah, nañu. sàmm naa nañ du ma mu ngi nii si arage bi ñu doon dóor. mu yéen mu ngi doo aussi jëkk ma doo ci njaay. waaw mu ñëw si kanam. waaye ba tey ki génn mooy la Fatim moom mooy Uda. na mu ngi si ligne bi du ma yéen ñëw na ñoom ñëpp ñëw nañ waaye ñu ngi ne tudd naa sax càmmeek génn daal Xudóos deuxième position du ma yéen jëkk aw na nee si arage bi moom dafay ñëw ndax daa ànd ak fas du ñëw di toogandoo di jàpp jàpp jékki-jékki génn na deuxième position ki fa nekk mooy Daaru Xudóos uh-huh. troisième position duma yéen moo fa nekk quatrième position seen naa fa lat fatim bu suñu papa ibatam seen baaw ku si naa rëy eh. waaye nag ba ki génn mooy jëkk mu ngi nii di maam na ñetti longueur uh-huh. waa ñaari longueur mais Daaru Xudóos moo ñëw ci toog si ginnaawam duma yéen troisième position ah gars yi avancé na ndax seen naa ko mel ni mosoon ah. ah, mu ngi nii di si kaw xam na ni kii le jockey de njëkk. Euh, uh-huh. moo di Gassé. Uh-huh. c'est un apprenti jockey. Uh-huh. mi ngi téewaat fas wi. waaye njëkk ngi xartu di dem. Daaru Xudoos Daaru ñëw na le numéro 6. ak bi ko war mooy. Euh, Papa Djibi Diop mooy Papa ñëw na en troisième position. quatrième position major ñëw na mooy Kassane bleu blanc. Dalin Kool moo nekk cinquième position. Ah, waaw waaw et major ñëw na. major day ñëw major ñëw na ñëw na. major ñëw na. Ngoné Latir ñëw na. Ngoné Latir ñëw na mooy Lat Fatim mu ngi si ligne <laughs> dinañ laal 200 mètres bi. bu ñëwee dañuy romb dellu. 1200 parce que benn 200 mètres la ñuy daw. 1200 mètres moo leen defee waaye ba tey génn mooy jëkk. Daaru Xuddoos deuxième position. position. major ñëw na. ki jiite fas na. Daaru Sam la. waaw ah, xale bi ñu bi. waa ji ba bi bomb bi dafa koy sécuriser. aussi da ko doon bàyyee. waaw nag moo nekk ci kanam. moo génn. moo di kase moo war njëkk. Lat Fatim ñëw na. le numéro 4 Daaru Xuddoos ñëw na ñoom ñëpp ñëw nañ. Lat Fatim mais jëkk ba mu jàpp bàyyi ko parce que jox na leen benn longueur te fas mën a dalal doomu solo demi la Fatim la numéro 9 yaayam doomu Vanis la doomu Konte ah, ah, Pape eh. Matar Mbengue moo ko juddu jëkkal ñu fi leen waaye am na kuñ daaw mu déclenché na la ñëw ñëw na tey am na sa arrage ba <laughs> major la bu ma la major génn na major génn na génn na Amine Ouma tamit dawal nañ Amine Ouma dawal nañ waaye la ci dawal nañ waaye major génn na major génn na dawal nañu Amine Ouma <laughs> Abdou Diop moo ko war <laughs> ah, dawal nañ aussi Dalinkoor waaw dixième nga xam ne maa position seen naa nag ku mel ni daf mel ni euh, daal position wala faydu la wala faydu la ndax ñu ngi neen di waaj si amin dawalaat nañ amin uma doomu tuwaay moo la nga xam te mooy passe waaye eh, major moo génn major a génn ah major génn amin uma ñëw na moo ko war père Amadou ah. Diaw amin uma deuxième position major moo nekk ci kanam mhm. major le numéro 12 en deuxième position mhm. amin uma le numéro 7 200 mhm. mètres amin uma 200 amin uma major amin uma major amin na major raw doomu Daneker la Lamine Ndam góor ñëw si Mister Pire mu ngi jógee équipe bu mag bee nga xamante ni mooy équipe réew mi major raw na si ñi nga xamante ni mooy deuxième bi raw li nga xamante ni mooy Grand Prix Kilène première édition ndeysaan xoolal di bi waa équipe réew jug nañ di félicité si ñoom Mbengue professeur Sakhi lu mu xam la lu mu miin la wax nañ ko <laughs> bi raw na ah? ñuy félicité ki nga ne mooy Mansour Sylla ak doole lii indi papam moo fi indi baayam fii ci Sénégal. xam a raw. Omar Sarr Diallo moo war major. Ah. Omar Sarr Diallo deuxième bi. deuxième bi Aminou Ouma la je pense. Aminou Maxa nekk. Aminou Ouma ak Maxa. <laughs> course bi rëy na. rëy na xoolal tribune bi ñëpp a ngi tàcc président Cheikh. mais gone yi li ñuy def nii ah? rafetul. waa gis nga ne dañ xam naa ne yaakaar gone yi li ñuy def nii rafetul. ndeysaan major a triomphé. boo xoolee moom bi mu ñëwee guddi lii xale yi def rafetul. Uh-huh. fas yi ku ñu dal sa kaw gaañ la. Uh-huh. lii wóorul. Uh-huh. service d'ordre bi nañu euh, repousser xale yi. Uh-huh. nañu repousser xale yi. Uh-huh. Major gagne la oh. première édition. Major gagne la première édition. lu war a mën a nekk la nag Grand Prix Kirène. lu war a mën a nekk la. organisé par le par le par le comité régional de Dakar. yaayam yaayam benn si ñor lañ koy wax. oui muy kër Mansour ah moo bokk ak mbay ma lii moo fi di ah, ah. Fred Ndoye bilaay waaw xoolal rek tribune bi ah, xoolal président Cheikh ñun président Cheikh ñun ñi waxtaan président Cheikh la cinquième course uh-huh. est réservée au groupe de neuf partants pour une distance de 2200 mètres. waaw jàmm rek waaye gis naa gis naa boo xam ne muy jibi jaxate uh-huh. war rasul uh-huh. moom apprenti joge la bi saison bi ubbeeg léegi mu ngi doog a war waaw jug nañu jënd ñu nekk 9 partants war a def distance. 2200 wax xel yi. waaw wax jënd na mais doon dañ ko doon rek pour mu jënd mais baax ba tey lañ doon ne mu jënd na. waaw ndax dig. mais miroir dafa mel ni nag moo nekk si kanam président Cheikh ñëw na ñoom ñëpp Maguette Diop ah Ndiouga ñoom ñëpp mais ki génn nii miroir la Fall mu ngi koy baax na ba tey jël na relais bi génn doomu raftawul la raftawul c'est par rafting miroir moo ñëw en deuxième position troisième position ki fa nekk mooy Maguette Diop Maïssa Sele Ndiaye Nasrullah ñëw na li nga xamante mooy en quatrième position Bourah mu mu ngi si biir bi président Cheikh mu ngi si moo jiitu ba tey moo jiitu Mbaye Diène Diallo moo ko war mm-hmm. mooy le numéro 8 mm-hmm. en position ki nga xam ne mooy miir wax moo fa nekk mm-hmm. mu nekk rawante bu rëy a rëy waa kii dafa mel ni dawal nañu ki nga xam ne mooy Maguette Diop dafay maamu mu ngi yëngu ngi maamu waaye xale baa ngi koy téye na ko bàyyi mu daw uh-huh. na ko bàyyi mu daw ci sa boom waaw gis bu Aliou Lay moo jiital fas yi mais ba tey ki génn mooy baax na ba tey Maguette Diop ñëw na deuxième position miir wax troisième position buraax mu ngi nee si arage bi langa ki nga xamante ni moom mooy nasrullah mais ba tey gi génn mooy baax na ba tey doomu raftawut la raftawut ku ne xam na ni c'est pour rafting deuxième position Maguette Diop doomu Machuan la Machuan ku ne xam ne ni doomu Anaba la troisième position nag miir wax moo fa nekk lang ak ki nga xamante ni moom mooy buraax gis nga Maguette Diop ba tey mi ngi maamu Maguette Diop Maguim Sokone bu mag moo ko woon mu Ndiaye Gadiaga moo ko woon waaw waaw waaw peut-être tamit dañ ko téyeloo ba si kanam pour mu dawal mais ba tey daal li wóor mooy baax na ma tey mooy génn njaat mi seet na trop nag ñuy wax mu ngi nii Maguim Diop deuxième position tey ji ku mel ni Salimane ñëw na dëggal boppam mu ngi nii mais seen kuraax mu ngi nii si aarage ak dara yënguwul kuraax ñëw na kuraax ñëw na mais Maguim Diop nag jël na wella bi génn na Maguim Diop génn na moo nekk ci ligne bi waaw Maguim Diop moo nekk ci ligne bi Maguette Diop moo nekk ci ligne bi c'est le numéro 3. Uh-huh. Mohamed Gadiaga moo ko war. Uh-huh. Maguette Diop génn na. Uh-huh. Salimar moo génn Salimar moo génn Maguette Diop en deuxième position. ak Bouraq Lang troisième waaye ndax ñeent ñi. rawante France lañ bëgg a créer. am nañ 500 mètres dañoo toog di ëppante. mais Bouraq déclenché na. Bouraq déclenché na ila Touba wa. <laughs> Ah, mi wax déclenché na. a na ba tey Salimar moo génn. Salimar moo génn nañu miir wax nag. dawal nañu Salimar numéro 2 moo génn. bu mu Abdou Khadim Mbaye dem waaw Maguette Diop mi ngi lang ak Buraax. mais Buraax ñëwaat na dawal nañu Buraax nag. Buraax ñëwaat na dawal nañu Buraax. Buraax ñëwaat na en deuxième position. ñëw na ki nga xam te ne mooy Salimar. la ilaha illallah troisième wax le numéro 2 mène le peloton. mu ngi nii le jockey de Salimar et Salim Kobar. Bouraax deuxième position. Uh-huh. Salimar mu ngi nii di capable suñu. bu ñu évité uh-huh. mais Ndiouga Fall dawal nañu. Ndiouga Fall ñëw na en deuxième position. troisième position ñu si kaw Maguette moo ko war mi wax léegi mooy. cinquième eh, eh, position sixième position. attention bu ñu ñëwee dañuy téye attention les deux bu ñu ñëwee dañuy téye Salima di jàppante la ko. premier Salima deuxième Boura. deuxième Boura troisième Juga Fall quatrième Diop. cinquième euh, euh, Nasrullah wax nekk nga xam te mooy <laughs> <laughs> huitième nekk président neuvième bi kon dañuy wax. jokkoo bi nga xam ne mooy Saliou Kobar am na <laughs> quinze réalisations. Ah, mais sànq la Salima la ngi nii. doomu Saliou Kobar am na quinze réalisations doomu Zeyna la uh-huh. uh-huh. xoos. premier Salimar uh-huh. nekk nga xam te mooy Boura. deuxième Buraax. Ah, ah, troisième dafa Buraax dafa def contre performance. Ah, troisième Juga Fall. Juga Fall mooy xàcc bi. quatrième Maguette Diop quatrième Maguette Diop. mu may sa Sele Ndiaye. cinquième a euh, cinquième Nasrullah. sixième Mirwax sixième Mirwax. Mirwax aussi reposement bi mu jógee. dafa def contre repos. Mm-hmm. repos bi baaxul. Mm-hmm. Mm-hmm. repos bi baaxul ci ki nga xam ne mooy Mirwax bu Ahmed Assane Sy. tey nag gis ngeen ni xam ne. noonu la groupe 2 bi dawee. Mhm. ki nga xam ne mooy fas yi nga xam ne mooy euh, buraax. Mhm. moom lañ doon xaar tey. Mhm, buraax moo moo am treize réalisation am six victoire. waaye am ak sept placé. waaye tey ki nga xam ne mooy Salimar moo raw. bu Jili Mbay bokk écurie Bagdad. Jili moo raw. waaye tafa bu ñu mënee am le ministre mu ñëw toog ci plateau bi dina am solo le ministre Matar Ba tey moo ñëw. président yi nga xam ne mooy journée bi bu ñu mënee am Matar Ba le président Matar Ba bu ñu ko mënee am dana baax. waaw ndeysaan Salima lay nii di jubilé. Salima Saliou Kobar le numéro 2. Mhm. joge bi doomu Jolof la doomu Jolof la. ah moo kii def na moo jëloon deuxième si grand prix chef de l'État doomu Keme Kobar. Adja Kole Fall en moo si jëloon deuxième. bi Daara Salaam di mu jël mooy deuxième moom moo doon Adja Kole Fall jour boobu noonu. Uh-huh. raw na fi lu ne bel sànq moo ci raw. Moussa. Uh-huh. dañu bëggoon ministre bi Matar Ba mu ñëw fii. waaw benn course moo des moo tax na ministre bi ñëw fexeel dirigeantel ñu ministre bi mu ñëw mu échangé moom le ministre Matar Ba mi ngi ci kaw même Ali Sala Diop bu mënee ñëw mu ñëw tey bés bu rëy la muy vingt et unième journée buñ ci jógee grand prix assemblée nationale la ñuy dawal dimanche bi di ñëw. Mhm. président bi nekk Moustapha Niass. Mhm. waaw. muy classique yi classique yi commencé nañ ko. def naa mooy doon deuxième classique de la saison. waaw organisée par la CNG. waaw waaw parce que boo xoolee moom moomu daaw dawal nañ ko fii moom lañ mujjee dawal sax course yi tëj. waaw ka rawoon moo nekkoon Rayane bu Ala Diagne nekkoon doomu benn ko defe naa moo ko deuxième woon. Mhm. moom fii daaw si hippodrome Ndiamo Koulou Diop defe naa moom lañ mujjee dawal comme tey bu ñu ñëwaatee di ko dawal dañuy dawal li xam te mooy succession. bi ñëw. incha allah ndax institution Abdou Mbow moo ñëw daaw jéeg. Mhm. waaye bëgg nañ président Moustapha ñas ñëw. Mhm. ndax fas. Mhm. dafa di lu yàlla loo xam ne yàlla moo ko teral. moo taxit président. Moustapha Niass ñoo ngi ñaan mu ñëw. incha allah ndax. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kursi yi. suñuy doom lañu. suñuy jarbaat lañu suñuy sët lañu. te fas. dafa xeex lislaam ba lislaam yegg si fii nga xam ne fii la toll. fas ku ko teral rek yàlla teral la. fas ku ko teral yàlla teral ko. Mhm. président Moustapha Niass ñu ngi ñaan sa bés boobu nga xam ne mooy am dimanche bi di ñëw. Mhm. nga ñëw nag nga nga nga nga nga nga nga mhm. sagal ñi nga xam ne mu ñooy comité national de gestion des courses hippiques. ndax ñi ngi def liggéey bu am solo. ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu filière équine. mbokki tu fis yi mbokki amateur yi lii lañ leen jëlele woon. fi nga xam ne mooy hippodrome ko Macodou Diop mhm. pour le compte de la vingt et unième journée mhm. comité régional bu Dakar organisé ko mhm. président bi nekk ki nga xam ne mooy Omar Bao Junior waaye du ñu tëj te gërëm a gërëmañu technicien yi preneur de son yi caméraman yi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ànd nañ ko ñu leen di jox dig daje dimanche bi di ñëw